li ci yéen kaay yi li ci yéen kaay yi El Hadji Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen a dafa ñàkk tegg di ko jëmale ci këru diine yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci réewum Sénégal yéene bi l'observateur xamal ne moom kay jamono ji li koy xaar boo moytul nar naa metti ci moom yéene bi dañu xamal boo moytul moom Ousmane Ba danañu ko àndi fi nga xam ne nag moom moo di réewum Sénégal xam ne moom kay jamono ji jot nañ koo jàllale fi nga xam ne nag moo di Argentine yéen kaay bi l'observateur di gàcc lépp loo xam ne nag jëm na ci chef d'état major bi nga xam ne daal maanaam ki nga xam ne moom moo di Bara Cissé yéen kaay bi dañu xamal ne moom kay mi nga xam ne moo nekkoon ak Abdoulaye Wade jamono ji njiitu réew mi Macky Sall daan na koy taf ci boppam ca jamono jooje Sud Quotidien di ñu xamal ne njiitu réew mi kay jamono ji ci mode urgence la nekk maanaam daal ngir taxaw ñi nga xam ne daal ñoo nekkee ci réewum Sénégal maanaam daal mode fast track gannaaw daal taw yi nga xam ne rek am na ci réewum Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne itam moom la ñuy jànkonteel ci wàllu koom ak yeneen yu ni mel njiitu réew mi kay jamono ji ma ngay gaawal lépp loo xam ne rek jëm na jëmale ci fànn gu nu mel le quotidien di xamal ne président Macky kay jamono ji li nga xam ne nag moom nañuy di ko xam di ne lu bi di laaj nag ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko yéene kaay bi dañu xamal ne lépp loo xam ne nag jëm na ci

na bii nga xam ne daal njiitu mi président Macky am na ko ci musiba mabba kumba gii nga xam ne daal moom lañ doon wax dafa wedd ba mu seetlu mel nee na mbir moomee amul le soleil yéene kaay di ñu xamal ne li am dëgg kay mooy sapeur pompier yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal njiitu moom dikkaat ci commissaire yi nga xam ne daal jamono ji ku ci nekk nag def nañ leen ay généraux yéen vox populi nga xamale moom kay jamono ji xaalis bi nga xam daal moom lañ ko dénkoon maanaam daal dafa këpp kees nga bàyyi fa dara yéen kaay bi di dikkaat ci lépp loo xam ne nag mbir yooyee nga xam ne nag noonu la demee ak El Hadj ne da ko bandum ni nga xam ne daal noonu la def yu bëri yi nga xam ne daal moom la laloon ci ndoddam ba ñu jàpp ki nga xam ne nag moo di Sissoko